bismillahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaye mën a nekk ñoo ngi leen ziar leen ñaanal jàmm gudd fan wér gu am xéwal gu yaa defar àdduna ak àllaaxira rawatina yéen ñi amoon ci daaru salaam si waaw ñoo leen di ziar bu baax a baax ci weer koor bi ñu ñëw yéen seen naafila yi ku julli guddeeg ñaar fukkeel bi ak juróom-benn ku julli guddeeg ñaar fukkeel bi ak juróom-benn fukki rakka rakka bu ne faatiha benn yoon alxaariyaatu malxaariyaatu juróom-ñaari yoon bu noppee mu wax astaxfirullah kem kattanam dana am yoolub ku woor diirub jamonoom yàlla dana ko musal ci sawara yàlla dana ko bindal limu biddiw yi ak asamaa yi limu xobi garab yi ci wiiw ba ba saar yi taxaw jibril ne ca ndeyjooram mikaayil nekk ca càmmoñam ca gannaawam asraayil la nekk ca kanamam israafil la cay nekk ba mu dugg àjjana kon kooku naa fi la jar naa de fukki rakaa lay doon alxaariyatu juróom-ñaari yoon pour wala wax juróom-ñaari yoon bu noppee ba asafura lu man asrafil ak asrafil nag ñoo ne ci kanamam ak gannaawam jibril ne ci ndeyjooram mikaayil nekk ca càmmoñam gunge ko dugg biir àjjana kooku julli moom neex na te jar naa def asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa